ba mu nekkee jolof dafa woon nit ñi bis dafa woon nit ñi bis mboolem ku nekk ci dëkk bi na ñëw mboolem ku nekk ci dëkk bi na ñëw ba ñu dikkee ba ñu dikkee mu ne leen mu ne leen na ngeen jaamu yàlla na ngeen jaamu yàlla ngir kat ngir kat li may jaamu li may jaamu sama bopp laa koy jaamul sama bopp laa koy jaamul jaamuluma kenn jaamuluma ko kenn te bu nu demee yomal xiyam. te bu nu demee yomal xiyam. danaa toog. danaa toog. ngeen toog. ngeen toog. sunu borom ni ma. sunu borom ni ma. jaam bi. jaam bi. yow jaam yi luñ doon wut ci yow. jaam yi luñ doon wut ci yow. Ah, ma wax ma ma wax ma wax ko la nga xam ne moom la ñu ni moom la ñu wut. ma ne nee na ma nettali ko la ñu waxoon ni moom la ñu fi doon wut. mu ni ma looleen leen daa digal ak loo leen daa tere. nee mu ni ma loo doon digal ak loo doon tere. te ku ne xam na li sëriñ bi digle ak li mu tere. te ku ne xam na li sëriñ bi digle ak li mu tere. Ah, kon koo xam ne loola da ngaa jàpp leneen lu dul loola. nee na kon koo xam ne da ngaa jàpp leneen lu dul loola. te wax ko ci làmmiñam. te mu wax loolu ci làmmiñam. ah da ngaa rek lu la neex. da ngaa wéyee lu la neex rek. Mm-hmm. ak ah, wala sa bakkan. wala nga topp nag sa bakkan. Mm-hmm. ah am na it koo xam ne da koo wax ni ko. am na it koo xam ne sëriñ bi daf ko wax ni ko. ak sëriñ ba. ak sëriñ ba. ñoo bokk luñ leen digal bokk luñ leen tere. ñoo bokk luñ leen digal bokk luñ leen tere. nee na bis a ngi ñëw boo xam ne ni ñañu doon topp danañu taxaw ni yéen ñi ma doon topp set naa ci yéen wicc. wala wala ba ñu jàkkaarloog mbugal ga. تقطعت بهم الاسباب لجيت لي دوخون سين ديغنتي دوغنا وقال الله تبعو غايا دون توبي دادي واخني لو ان لنا كرره خمغي ني بونو ديلو وون ادينا دي انا تبرا منهم كون دانو ستيين كما تبرا منا كوم ني نين سيتي نون تاي ذلك يريهم الله اعمالهم حسرا فك يالا دا بغا وني لا نين دان ديف دارا باخو فراسنا الامم بخارجين من النار لول لين تاي نك دو يين ген سافارانغو اللهم اجرنا منها نينا يالنتي يالا موسل loolu nag képp ku ñuy topp ak kuy topp nee na nag loolu képp ku ñuy topp ak kañuy topp xalaat bu baax mat naa xalaat bu baax moo tax ko xam ne nit da jox boppam moo tax koo xam ne nit da laa jox boppam jébbal la boppam jébbal la boppam bàyyi bàyyi mbiram yëpp ci yow bàyyi mbiram yëpp ci yow masuliya bu rëy la mu nee na loolu responsabilité bu rëy la boo xam ne boo xam ne su fekkee awul fa mu war a aw. bu fekkee ne awul fa mu war a aw. loolee mu wax rek ci am jàppante téere. loolee yàlla wax rek ci am ëllëg jàppante téere baat. rek ci am.